asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. allahumma laka alhamdu xatta tarda wa laka alhamdu isaa radayta wa laka alhamdu baada rida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax dellu di leen ziyaara bu baax a baax a baax oo ànd ak yéen ci waxtu wii ci jamono bu ne insha allahu taala tey nag ñu ñëw ci lenn lu doomu aadama bi bu fekkee dafa am dara dara loo xam ne da koo ragal suratu Qurayshin ñett bindaat yeneen ñett mu takk benn bi beneen bi itam mu sangoo ko ba tey bu dee itam mën na koo jàng jarut mu koy bind da koy jàng juróom-ñaari bu jàngee suratu Xuraysin juróom-ñaari yoon yaa amu sécurité kon nag fa bi amnika min kulli shay'in wa xawfi kulli shay'in minka aminni mimma axaafu innaka ala kulli shay'in qadirun boo ko waxee sun borom da musal ci loolu nga doon ragal ba du la mën a lor te mënagul am doom ashadidu baatub shadid lay bind alif gaag laa nga jarul côté boo ko xoolee rek dalay jox ñeent te xaatim bu doon ci adat la sax noo ko xoolee rek bu dee sulaas yi noo ko xoolee dalay jox ñett bu dee rubaa noo ko xoolee dalay jox ñeent bu dee sudaas yi noo ko xoolee dalay jox six loolu itam kon bu dee ki nga xam ni yàgg naa xam xaatim rek dana ko xam waaye bu dee ki nga xam ne xamu ko dana danañ ko indil ay leeral yoo xam ni dina tax da koy indi lu ci ne danga ko indi ñeenti yoon boo ko takkalee jigéen ji nga xam ni dafa ëmb te doom ja nar yàqu ci biiram wala koo xam ni daa jur doom ba noppi doom ja doom ja dund bu ko takkee suñ borom subhanahu wa taala dana dogal dana mucc ci jàmm dana am doom ci jàmm te dara du ko ci lor xaatim bi itam moo nekk nii ñu leen di leeral koo xam ni nii itam mënu koo binde shadid bu joxee ku ko bindal itam baax na mu bind lu sóoratu yuusuf bi mu ko bindee itam mu takk ko suñ borom mën naa dogal doom ji itam dana doon góor dana yor melaw rafet itam ko suñ borom di musal lay doon dana doon koo xam ni itam doo ko gis mukk ci lu yàlla gërëmul man kataba suratu yusuf min gayri an yatamisa minha xarfan wa alaqaha ala almarati alxaamili fa innaha talidu waladan yakunu dakaran jamilan aswaru saidan aw yakuna mi mimma la yardaa buñ nee dana doon koo xam ni itam suñ borom dana ko musal ci lépp loo xam ni yàlla gërëmu ko te itam dana doon ko texe loolu bu doonee koo xam ne nii nërta texe suñ borom du dogal ci moom mu koy xam sax wala bu ko xamee itam du ko am ndax suñ boroom lépp lu am lépp lu amagul tem dogal ko rek moom xam na ni dana am yor melaw rafet doon ku texe doon koo xam ni ku yàlla gërëm lay doon te doo ko gis mukk ci lu suñ borom beñ loolu itam day doon loo xam ni suñ boroom ci boppam moo koy tàggat ndax ñëpp moo leen moom bu nee doomaadama bi buy jëf lu baax ak lu xamut mënut sañut waaye kon dangay gis ni ñi ñuy wax la ñu wax ni doomu aadama bi bu fekkee jëfut bu fekkee yàllaa ko bind waaye ay jëfam moom moo koy jëfal boppam loolu waxi jaahil la am na ñu wax ni sax ñooñu moom weddiwuñ waaye wax ji gën a wér mooy ñooñu moom dañoo weddi seen borom ndax doomu aadama bi bu dee lu bon bu dee lu baax lu mu mën a doon yàllaa koy dogal waaye lii lii différence bi nag mooy bu dee lu bon la ak lu baax loolu dañ la dañ lay jox exemple ci àddina àddina da ngay gis lee xam ni lu bon la gis lee xam ni lu lay jariñ la gis lee xam ni lu lay lor la da ngay wattandikoo lu lay lor di dem ci li lay jariñ loolu ci mbiru àddina la te loolu lépp ci coobare yàlla nga koy defee waaye suñ borom dala bàyyeek sam xel sa xel mi ngay doxee kon doomu aadama bi fu mën a toll daa war di ñaan boromam mu mu di ko dimbali di ko tawféexal di ko kàttanal ndax doomu aadama xamut mënut sañut lépp yàlla ba noppi itam koo xam ni itam bëgg na sun borom soxna si tëdd wetu ndeyjoor loolu itam mën naa waral doom ji bu juddoo nekk góor bokk na ci lii sabab doom ju góor ci nammeelu yàlla boo amee soxna sa soxna si bu tollee ci ëmb dangay bind ci biir bi Muhammad ba pare daal doom jikat kat tudde naa ko Muhammad loolu itam mën naa waral sa doom bu juddoo itam nekk góor koo xam ni itam nag dafa bëgg a am yiwu rëy rëy ci àddina woo xam ni daray coono du ca tegu wa isaa kuti bat naa la xayran kasiran day bind arrahman mën naa dogal mu mucc koo xam ni itam nag dafa bëgg wërsëgam yokkoo yokk ba kawe njortam day bind baatu basma la baatu basma la mooy baajoor gi ci bismillahi rahmaani rahim araf woo ca njëkk muy baa ñaar fukk ak benn yooyu ginnaaw ba nga ko bindee ba noppi nga jàng ca yoo ni day ànd ak yéene ju sell tifli ko ca kayit wa teg ko ci sa kaw wërsëg dana yokk sa wërsëg ba danga ci gis njariñ lu kawe sa njortu baajoor googu ngay bind ñaar fukk ak benn bismillahi rahmaani yoon wa isaa kutibat baaul basmala hakaza ihda wa tuliyat alayha basmala bi niyatin shadiqatin miata loolu itam dafa doon loo xam kum nëmmut ci yow nga nar koo am rekk doo ko am ndax maa faratna fil kitaabi min shay'in sun borom alxuraan jii mu wàcce lépp a ngi ci bawut dara lépp mu ngi ci wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin